di nuyu ñi nga xam ne nii ñëpp ñu ñuy déglu dans le Sénégal et dans le monde. di la wax ne vraiment Diafara kontaan nañ lool ci dalal bi. am na solo kontaan bi itam si suñu wàll contentement bi itam laata rek ñuy daal di tàmbali euh, émission bi dañuy am rek ay ngërëmal cant di ko jox ki nga xam ni moom moo di président directeur général bu groupe promo consulting di euh, Mbagnick Diop nekk itam njiital MEDES ak euh, soirée bu am solo bi nga xam ni organisé na ko fële nga xam ni moom moo di ca diwaanu États-Unis mu daal di dajale lépp loo ne ay nit la yi nga xam ni dañuy yëngu ci wàllum diaspora bi ci États-Unis moo xam nga nekk beneen dëkk lépp rek mu daal di jox euh, sargal ñi nga xam ne ñoom ñoo di doomu Afrique waaye itam rawatina ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di doomu Sénégal donc mu am euh, li nga xam ne moom moo jëm ci euh, defi boo xam ne yëkkatiwaat na ko ginnaaw bañ doon wax président directeur général bi Mbagnick Diop fii ci diwaanu Sénégal corridor li nga xam ne moom moo di jëm ci Africa jëm ci international donc li ni mel mel ni ab réussite totale la am ci li nga xam ne moom la ko doon amal fële nga xam ni moom moo di ca États-Unis donc Cheikh Gueye xëy na ñàkkul ni euh, dégg nga président Mbagnick Diop ci ay défis yi nga xam ni nag euh, yàgg na ko di relevé tey yan kàddu rek ngay jël euh, di ko daal di wax ci wàll wi ni mel ndax li ni mel nag nekkat na défi li nga xam ni relever waat na ko moom président Mbagnick Diop. jërëjëf Mbemba encore une fois vraiment félicitations à monsieur Mbagnick Diop Souche on le connaît bien sur ce nom-là donc depuis MEDES ñun ñoo koy suivre parce que am na suñu parce que suñu suñu rakk la. ku nga xam ne nii xaritam la daf ñuy wax lu baax ci moom lu bëri lu nga xam ne dañ koy def Sénégal aussi ñu ngi koy suivre de près mm. donc dañ koy féliciter waat ni mu ko réussir corridor au Sénégal su demee ba réussir ko aussi au niveau international c'est parce que on sait c'est quelqu'un qui a la volonté et de l'ambition mm-hmm. donc bravo Mbagnick am na solo kon donc ñi cant bu baax ki nga xam ni moom moo di président directeur général moom président Mbagnick Africa Leadership Awards am na réussite bi nga xam ne am na ko ca diwaanu États-Unis waaye li nu mel dañuy daal di ubbee suñu ponk nga waxtaanee ko ci émission gox bi tey may fàttali di dalal tey Cheikh Gueye nekk rek kandidaa ci mairie bu diwaanu Guinguinéo Guinguinéo nag boo ko tuddee sa xel day dem ci Kaolack donc tey yow lan am gan di la sant d'abord ci ni ngi ñu nangulee invitation bi nga ñëw tey fii ñu daal di waxtaanee ci li nga xam ne moom moo jëm ci commune bu di Guinguinéo googule mais laata ñuy dugg xuus ci waxtaan ci mbirum gin ginnaaw googule actualité bi xam nga daf ñu tey li nga xam ni moom moo jëm ci poste premier ministre bi nga xam ni njiitu réew mi sàkku na ngir mu dellu lan moo ko tax a jóg sa gis-gis ab lajjite la mu tax ñu indiwaat ko wala yow noo ko jàngatee d'abord Euh, merci beaucoup euh, donc euh, affaire premier ministre moom euh, dafa am déjà lu mu révélé Euh, euh, li xew nii dafa am lu mu révélé li mu révélé mooy vraiment y a de l'incompétence au niveau au, le plus haut de l'État parce que su fekkee ne dañuy dugal premier ministre génnewaat ko dugalaat dafa mel ne quelque part ñi ngi ci li ñuy tuddee euh, pilotage à vue ñun nag suñu parti dañu woon sax duñ ci wax parce que c'est un non événement En tout cas, ce qu'on a constaté, moi, la révélation que cette affaire-là a montré, c'est que vraiment, il y a de l'incompétence. Et Macky Sall, aujourd'hui, ce qu'il doit faire, moi, wax Sénégalais yi ma dénkoon seen réew mi man kat damaa àgg fu ma xam ne damaa jafe damaa am jafe damaa tële donc damaa war dem. kon lajj la lajj la daal lañ mën a jàpp daal ñun. <laughs> donc ce qui est important c'est pas trop ça. ce qui est important mooy régler les les les problèmes des Sénégalais aujourd'hui Sénégalais yi nekk nañ ci ay jafe-jafe yu nga xam ne nii et dans toute aussi jafe-jafe yooyu dama ciy impacté donc war a jëmale li muy def. mais pas ci ay dugal premier ministre tey bu subaa nga génne ko donc ce qui est mooy révélation bi mu def mooy c'est de l'incompétence. est-ce que tey premier ministre bi war ñëw. warul mën a jël préoccupation ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan yi parce que dañuy dégg syndicalistes yi di wax naan ñoom amuñu woon interlocuteur ndax seen point d'accord yi euh, daanaka buñ ko joxee ci seen ministère tutelle yi euh, daanaka mbir mi du avancer te premier ministre moom moo doon piloté moo doon presque saytu li nga xam ne moo jëm ci seen revendication yi léegi tey est-ce que kooku tey bu ñëwaatee dina dekkalaat espoir tuuti ci li nga xam ne moom moo jëm ci fast track boobu ñu doon wax kon dafa mel ni euh, mbir mi fast track amu ci. trac amul parce que soo seetee sept ans durant euh, Macky Sall a mis au moins quatre premiers ministres. et durant toute cette toutes ces années là pratiquement gisuñu leen lu changé wax na fi fast track wax na fi euh, xaw ma ni ko Macky Mimi euh, Touré doon waxee. accélérer la cadence accélérer yi wax na ko fi mais en réalité c'est pas parce que dañu dañu dañu bëggul mais dañu mënul. tey jii nga indi premier ministre nga bañ indi premier ministre euh, déjà le capitaine en chef qui est Macky Sall moi je l'ai dit hein, depuis 2019 c'est quelqu'un qui a montré ses limites depuis le début donc c'est pas aujourd'hui en amenant un premier ministre ou en le ramenant ou en le retournant que c'est les régler affaire bi donc c'est pas ça hein euh, ce qui est maintenant de la de la de comment dire du social je crois que foofu moom il faut que ñu xam ne quelque part ñoom dañoo faillir parce que su nekkee les syndicats lépp lu nga xam ne ay protocole la woon lu ñu signé woon ak euh, le le gouvernement qui est là presque gouvernement bi respecté wu ci dara donc aujourd'hui euh, les syndicalistes sont dans leur bon droit vraiment d'aller dans les rues ngir jeexal ponk boobu ban hmm. premier ministre ngay xaar exactement ñu tabaat ko ci nim réew. Euh, Mbemba dama lay waxaat encore une fois ne une équipe. si euh, vraiment le capitaine ou bien l'entraîneur ne marche pas rien ne marchera. Ah, et man su ma nekkoon tey jii quelqu'un bu may consulter comme premier ministre dama naan ko basta nu ma ñëw. parce que xam naa ne premier ministre ba muy da koy yóbbu rek pour griller ko mais ça ne sera pas pour faire des résultats. et à deux ans des élections vraiment les car les carottes sont euh, bi nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee fan yii yëpp mu jëm ci charte no euh, violence bi nga xam ne cadre unitaire de l'islam ñu ngi wër di ay politique si ay parti politique ci société civile bi daal di waxtaan ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu wàllum violence yow ci sa wàllu bopp li ngay rafetlu la. oui euh, ñun nous sommes des partisans de la de, du non violence de la non violence parce que en réalité ñun suñu parti euh, dañu am un peu un penchant maois te ku wax affaire maoisme di nga tudd ku nga xam ne mooy euh, Mahatma Gandhi. quelqu'un bu nga xam ne il euh, il cultivait ce qu'on appelait le pacifisme donc ñun affaire violence waxuñu ci dara waaye nag violence dafa am deux formes il la violence verbale mais aussi il la violence physique am na fooy toll suñ la poussé ci violence vraiment sooy dem ba violence di fa àgg vraiment su boobaa dootoo mën a maîtriser li nga xam ne mooy saw ñooñ euh, en tout cas ñun nous sommes vraiment pour que euh, ku war a signer signer ko su fekkee mën na nekk mais li wér te wóor mooy du signature bi moo am solo mais il faudrait que de l'autre côté nga xam ne mooy le pouvoir qui est en place ils sont très violents au niveau de leur sortie verbale et là vraiment ça va pousser les gens aussi à agir de manière physique on ne souhaite pas ndax da nga jàpp ni euh, li gën a am solo mooy beneen wàll gi moom moo ko war a jël ci li nga xam ni moom moo jëm ci euh, violence bi euh, mooy ñi ngeen di jàkkaar lool muy état bi parti au pouvoir ndax ñoom dañuy faral di dégg ni ñoom ñoo yor police ndax yéen loolu ngeen di saako ku ko yor police kay mën a wattu kaaraange. non xam nga du affaire police parce que la police sénégalaise elle est républicaine. comme l'armée comme euh, les autres euh, facteurs yi nga xam ne secteurs yi nga xam ne yëpp ils sont là pour la sécurité et l'ordre public mais en réalité c'est pas ça euh, la question la question mooy ñoom ni ñuy waxe ak ni nga xam ne noonu la ñuy aborder yenn questions yi c'est vraiment amener les gens à à à être violents. Mm-hmm. on le on souhaite pas hein, vraiment mais ñoom daal ñu war a xool seen bopp parce que la violence verbale appelle la violence physique on ne sait ñoom ñoo war a xoolaat seen bopp kon euh, ñu daal di wéyal ci waxtaan bi mais bu njëkkoon monsieur Guèye xëy na ni yaa ñu euh, sut ci lu bari gën ñu xam ci lu bari mais violence bi ñu gis ni daaw ñu ko woon gis bu njëkk lan moo changé ci diggante bi ba ñu gis ni espace politique bi anam gi mu waree am nu mu waree rafetee loolu léegi dañ ko mel ni lu ñu xaw a tumranke lan mooy violence bi lu tax. jërëjëf loolu vraiment c'est une importante question parce que. Euh, Sénégal dafa am lu nga xam ne dañ ko amoon ci un passé mu nekkoon lu am solo mooy la formation et l'éducation politique dans les partis loolu nag dafa mel ni dafa jeex léegi man bi may dugg ci sama parti bi ma nekk muy AJPADS pratiquement xaw ma woon sax Landing xaw ma woon Decroix je l'ai dama dugg nii par hasard parce que dama rencontré woon benn euh, profession de fois bi ma ko liiree si laa gis ne ñii quelque part am na lu ñu gëm ma commence di leen fréquenter à travers euh, des de de conférences à travers des de des des écoles parti ba noonu la ñu amee formation tey ji ñu mën a taxaw di mën a argumenter donc soo gisee violence am c'est parce qu'il y a des cours d'argument nit ñi dama ñu amatul argument politique y' a pas de formation y' a pas lan la ñuy seet léegi ci politique rek mooy dem wuti xaalis wala dem wuti ay poste kooku nag di ñëw di wuti loolu di wut poste wala di wut xaalis kooku moom xanaa ko leer ne moom day am du su manqué argument lan moo fay des mooy les biceps su boobaa doole rek la yaakaar ne mooy yëf yi quoi. Mhm. donc voilà voilà en gros historique wu violence au Sénégal. est-ce que tey njëriñu école du parti imposé wul tey. ah oui bien sûr bien sûr bien sûr que oui mais est-ce que parti yi loolu aussi soxal na leen parce que en réalité aussi parti yi. li leen gën a nekk fi mu nekk nii mooy dañuy am presque ay chef alors que bu njëkkoon du woon ay chef affaire naataangoo woon affaire nawla la woon léegi nag affaire chef la ñu doon monsieur Samb day ñëw créé partem daal ne man maa jënd chaise man maa jënd table donc lu ma bëgg la ñuy doxal kon su boobaa xam kooku amul temps pour nekk di def formation amul temps pour créer école du parti li muy cherché rek mooy moom na àgg au pouvoir quitte à ce que vraiment mu sacrifier les autres qui sont avec lui mais ñun suñu parti moom du woon du woon loolu te ba léegi ni aussi on se bat pour que bu bañ a nekk loolu. leneen li nga xam ne itam ci biir semaine bi la xewee mu jëm ci chamboulement euh, magistrature bi li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu magistrat yi gis nañ ne euh, njiitu réew mi amal na conseil supérieur de la magistrature un an ginnaaw ci bañ ko amalulee. Euh, li ni mel nag ñu ngi ci chamboulement yu bari procureur bi tegg nañ ko fa am na keneen ki ñu fa teg ki nga xam ne moom moo di doyen des juges bi nga xam ne moo fa génnoon moom itam am na keneen koo ko remplacé ngir euh, justice bi mën a dem gis nañ Souleymane Teliko bi nga xam ni moom moom fi nekkoon président de l'union de magistrats Sénégal yóbbu nañ ko fa la nga xam ne moo di ca Tambacounda ñenn ñi sax ñuy jàpp ni mbirum sanction la yow tey lan moo si sa jàngat. Euh, jërëjëf li ma bëgg wax foofu mooy d'abord rendre hommage à la magistrature. man du ma bokkuma si ñi nga xam ne nii damay nekk di leen sànni xeer wala ma leen di doyadel c'est des gens très intègres c'est des gens aussi yu nga xam ne ñu xam seen liggéey lañ euh, soo jëlee ku mel ne Souleymane Teliko boobu ngay wax ne dañ ko sanctionné man jàpp naa ne du sanction parce que moom daf li muy nekk mission la dafay dem ngir liggéey li yàlla mais mun naa citer aussi keneen koo xam ne sama xarit la Abdoul xaw Khawsu Diop c'est un magistrat de renommée qui a été au niveau de la cour d'appel comme euh, secrétaire général. Secrétaire général aujourd'hui aussi il a été relevé pratiquement quoi il a été relevé donc quelque part ñooñu ñoom liñ gëm ak liñ nekk da ngay xam ne ñii dañuy liggéeyal yàlla dañuy liggéeyal askan wi donc en gros que mu changer euh, euh, nomenclature magistrature yooyu yëpp amul solo parce que li am solo mooy ñoom à leur euh, intime conviction ku si nekk. nga am ne lii may def dama siy liggéeyal yàlla lii may def dama siy war a jàmm yàlla su boobaa l'indépendance de la justice boobu ñuy wax du nekk dañ koy décréter mais day nekk chaque magistrat yaay sentir indépendant su boobaa que ñu teg la fii que ñu teg la faa tu vas continuer à travailler pour ça. léegi ñuy wax ni njiitu réew mi dafa war a génn ci conseil supérieur ak ministre de la justice ngir justice nag gën a mën a demal boppam ndax ay la yéwén am na ay dossiers yu bari yi nga xam ne dañ ko fi wax dañ naan euh, am na ñu ci dugal seen loxo moo xam njiitu réew mi wala ministre de la justice. est-ce que tamit euh, justice bi mun a demal boppam tey jotul ñoom ñu génn si. am déet way loolu moom vraiment man <laughs> xam naa dinaa ci nekk un peu à l'aise pour tontu ci parce que yàlla dafa dogal dama defoon euh, benn concours ENA euh, bi ma demee ba entretien sama entretien si loolu la loolu la loolu la loolu la accès woon. Euh, la justice euh, xaw ma l'indépendance de la justice mythe ou réalité mais bi may développé te loolu dama ko jàng en droit aussi euh, tant le président de la république ne le ministre génnuñ ci euh, conseil supérieur de la magistrature boobu li ñuy wax naan indépendance dana xaw a des parce que nit ki nag daanaka li ñuy wax ne euh, fa mu lay fa mu lay fa mu lay jëmale ñaare mooy fa koy arrangé te ñoom mënuñoo nekk ci biir ba noppi am na benn ministre bu ko fi waxoon benn syndicaliste naan on ne peut pas scier la branche sur laquelle je suis assise hein donc là quelque part da xam ne kon ñoom tant que génnuñu si rek ñun lañ bëgg ci magistrature dëgg ak justice vraiment équilibrée une justice forte dana des. kon lu bari donc nous prenons pour que vraiment le, le président et le ministre de la justice vraiment ñoom ñu génn ci conseil supérieur de la magistrature ku wax euh, gin gi neew ku wax itam li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum gerte gerte gi xam ngeen ni fan yi ñu génn itam euh, daal di nañuy joxe li nga xam ni nag moom moo jëm ci kilo kilo bi mu nekk deux cent cinquante francs mooy njëgu daaw gi euh, ku nekk gin gi neew nag ne gerte alors tey baykat yi dafa mel ni ñoom prix bi am na ñu ci d'accord certes mais am na ñu doon séntu ngir ñu daal di koy gën a yëkkati yow mi nga xam ni gin gi neew nga dëkk ñaakaar naa ni sax ci mbay mi euh, lan nga xalaat ci kilo gerte bi nga xam ne dëxëñ nañ dënk tënk nañ ko ci juróom fukk voilà jërëjëf euh, xam naa ne boobu aussi beneen facette la monsieur Guèye est un cultivateur waaw na solo du ma cultivateur u dimanche ma cultivateur du am na solo man a euh, depuis 2009 bi Abdoulaye waat lancé la Guana dama dugg ci mbay te li ma doon bay dama doon bay à des à des superficies très larges dama doon ji deux tonnes ci graine ci samay tool te vraiment doon jël ay saisonniers di leen fay donc maa ngi doon créer de l'emploi donc xam naa bu baax luy mbay te aussi avec le la CMS ou bien le Crédit Mutuel du Sénégal dama bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo tënkoon ci dans le conseil d'administration doon saytu affaire mbay moomu ni ci mosoon di wax mooy tant que amuñu ay chaine de valeur nga xam ne baykat bi depuis le début jusqu'au fin jusqu'à la fin dana am fu nga xam ne nii dina xam fu muy teg tànkam état bu nekk mu xam li muy def su boobaa tant que àgguñu foofu rek xamal ne mbay sa fulaale guñ ko Sénégal man kon damaa jàpp ne aujourd'hui ñuy wax prix gerte deux cent cinquante francs mën naa wax ne sax euh, dañoo xaw a toroxlaan bay baykat bi. ah oui parce que intermédiaire yooyu dañuy am plus de euh, deux cent cinquante au terme dinañ am plus de cinq cent francs ci kilo de graine bi donc kilo de coque bi donc ma jàpp ne kon aujourd'hui li euh, gouvernement waroon def. mooy amener le prix de l'arachide au moins à 500 francs. yéegal ko ba 500 mais aussi mais aussi créer une chaîne de valeur une véritable chaîne de valeur nga xam ne dañuy dellusiwaat ci li ñu doon wax ñun parce que ñun ay baykat lañ suñu parti sax ay baykat ñoo si parce que c'est un parti de masse maanaam créer ay coopératives villageoises. à partir de ces coopératives là ñu outiller les gens qui sont là-bas que ça soit les femmes ou bien les jeunes à mettre de des des de moyennes entreprises ou bien de petites entreprises pour que ñu mën di transformer les produits yooyu ñuy am mu bañ a nekk rek ay transformation de produits agricoles liés à la l'arachide mais tout ce qui est produit agricole ñu mën koy transformer depuis les villages jusqu'au jusqu'au jusqu'aux villes jusqu'aux villes là dinañu permettre ñu mën a dépasser cette question là de prix de l'arachide aujourd'hui nga jëndee sa euh, prix de euh, prix de de gerte sooy sooy waaj a nga jënde ko 1000 francs gramme nga bëggee ñëw kook bi ñu jaayale ko nga jaay état bi ko jënde 250 francs voyez ce que cela fait alors la chaîne da nga dépensé da ngay si lu ne ba ci engrais bi ci saisonniers yi si ñëpp ñu ngay jël ay dépense la donc soo ñëwee bu ko jaayee deux cent cinquante francs te ba noppi état bi nag posé nit ñi di dem mbapat te parce que la Sonacos déjà aw ma ci nag ay ay ay lu ma leer mais dégg naa ñoom ñu ngi jënd déjà à deux cent dix. kon door na. daf mel ne Sonacos sax moo commencé une société nationale qui est regrettable et quelqu'un qui est qu'on a beaucoup respecté on a eu à travailler avec lui Mamadou Diagne Fada qui est euh, euh, directeur général de cette Sonacos là su fekkee moom dégg na ñuy wax affaire ne Sonacos mi ngi jëndee gerte à deux cent dix francs di def mbapat laa moom waroon na monter au créneau pour dire que loolu moom na dakk kon am na lu bari lu ñuy xaar ci mbay mi ngir mu gën a suqaliku. ah oui oui oui ñun nous avons un programme un vaste programme soo liiree solution programme moom euh, euh, Mamadou de Decroix bi nga xam ne mooy euh, ma vision pour le Sénégal. vraiment dañ ci gis ni def na ci ay jéego yu rëy ay proposition yu nga xam ne nii suñ demoon tey jii ba jël réew mi vraiment dinañ gis ne mba mbay mi dina suqalikuwaat bu baax a baax. am na solo Cheikh Gueye moom mi nga xam ni candidat la ci commune bu Guinguinéo moom mooy sunu gan tey ci émission gox bi donc ci émission gox googu de dañuy mën a am prox ndollu daal di dugg waxtaanee ci li nga xam ni moom moo jëm ci commune boobu ñuy wax gi Guinguinéo nekk ca diwaanu Kaolack tey monsieur Gueye euh, defal taarix ci commune bi nga xam ni moom moo di commune bu Guinguinéo man mi nga xam ni maay wax ak yow nga mën ma xamal ak mbokki auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu euh, Guinguinéo est-ce que mën nga ñu defal taarix bi. ngir ngi Guinguinéo une belle ville une ville qui a été vraiment florissante vraiment Guinguinéo dama koy waxaat man Guinguinéo laa juddoo euh, Guinguinéo laa bëgg parce que Guinguinéo moo nekk sama deret sama jumbax bii soo demoon tey ji da nga Guinguinéo da nga fekk foofu lañ ko suul fa la waddee woon. kon ngir ngi neew daf ñu ñor fépp fu ñu mën a nekk ak lépp lu ñu mën di yëngatu ngeen ngi neew lañ si jiital. maa ngi gis yaa ngi koy wax avec émotion avec émotion parce que c'est une ville que que qu'on qu'on parce que lépp lu ñu am nag foofu lañ ko amee ba tax na ñun suñu nekkee ci dara rek ngir ngi neew lañ si njëkk a gis ngir ngi neew lañ si njëkk a gis ngir ngi neew dafa nekkoon dëkk bu nga xam ne nii avec le chemin de fer bokk na si dëkk yi njëkk a rayonné pratiquement dans le Sine Saloum déjà en 1956 euh, la commune a été érigée ngeen gi ne érigé nañ ko en commune en 1960 déjà mu nekk commune en plein exercice aujourd'hui ngeen ngi neew dem na ba am na population bu nga xam ne ni ça tourne autour de vingt à trente mille habitants avec des gens très ambitieux ñu bëgg seen bopp ñu nga xam ni ñu xam liñ bëgg lañ ñu aussi ñu naw seen bopp parce que yéen bëgg liggéey tamit ngeen ngi neew nag dafa am lu nga xam ne ni moo ko caractériser chemin de fer dee na ba noppi mu nekk une commune rural bu nga xam ne ni jàppale wuñ ko appui wuñ ko. dañ ko bàyyi noonu dañ ko bàyyi noonu ngeen ngi néew. ci naka soo demee sa yaram day daw. ci naka infrastructure des na fa bu baax a baax a baax surtout tous les plans. facteur boo jël axe boo jël rek. Mhm. da gis ne infrastructure ci léegi ci wàllum woto yi ñu daal di koy dooree foofu. Mhm. comme tudd nga train bi ñu waxtaan ci wàllu oto yi. Mhm. Euh, yaa ngi wax infrastructure. lan moo fa jagati. waaw li fa jagati d'abord mooy euh, enclavement bi. loolu mooy le premier ngir ngi neew ba man mos naa si dem def ay marche ak i grève pour que ñu defal ñu tronçon Bac Samba Dior ngir ngi neew loolu si jamonoy Abdou Diouf la woon boobu jotee encore très jeune ñu réussir à ce que tronçon boobu ñu def ko mais ba léegi ngir ngi neew est resté enclavé parce que nag dafa nekk dëkk bu nga xam ne nii euh, dafa am gannaaw au moins il y communes yu nga xam ne dañ ko wër te su fekkee ne amul benn yoon bu ko traversé vraiment dañuy jàpp ne kon ba nëga ni loolu jafe donc chemin de fer bi moom vraiment wax waxatuñ ko moom loolu moom daree nañ ko incha ñun am na si programme nag waaye li nga xam ne mooy euh, enclavement bi tant que amuñu euh, yoon bu jógee kawoon jaar ngin gineew jaar euh, ñii bi jaar mbos jaar ñii bi tant que tali boobu parewul vraiment jàpp naa ne enclavement bi day des te loolu nag c'est Macky Sall xam na ko Abdoulaye Wade aussi xamoon na ko moi je l'ai reçu à ngir ngi neew en 2000 bi muy dëkk ba moom xamoon na bu baax ngir ngi neew bi mu ñëwee ñu wax ko loolu dane may fii xam naa fi dama fi daan yi tali boobu dama koy defar ba nëgë ni maam Madior booy fii la taxaw wax ne dinañ ko defar naa les meilleurs délais Macky Sall mi waxaat na ko du Faye bi nekk Feera waxaat na ko récemment mais ñu ngi xaar en tout cas ñoom ñëpp suñu ko réussir tey jii vraiment dina nekk lu nga xam ni dana nekk luy arranger ngeen ngi neew ak luy développer aussi ngeen ngi neew. ci wàllum infrastructure yaa ngi ne kon euh, am na lu bari lu nga xam ni war nañ ko fa des. Mm-hmm. tey bu ñu waxee itam gin gi neew kon bu ñu waxee axe boobu war a wax wàllum paj kon fu mu toll. waa paj mi aussi euh, suñu defee diagnostic bi euh, mën nañu wax ne am nañ fa benn centre de santé. bu nga xam ne nii dañ si rendre hommage suñu papa papa Ousmane Niang Galan nekkoon na fa ci ay relation au temps du parti socialiste si la fexe woon ba Mamadou Diop nekkoon ministre de la santé ñu def fa centre de santé boobu ba nag ni ma fa nekk vous imaginez wax nañu ñi fii dañ koy def hôpital de niveau 3 mais ba nag ni dara amagu il est vrai que waa ngeen ngi new nag tooguñu bàyyi seen bopp parce que de santé fay jaar yëpp wala comité de développement sanitaire yi fay jaar yëpp ñi ngi def ay politique aussi yenn association yi ñu ngi ciy agir yenn médecin chef yi nga xam ne aussi bëgg nañ defar saa yu ñëwee ñi ngi jéem a defar ba am ñi am équipement mais ci wàllu santé xaw na sooxe ndaxte mën nañu wax ne centre de santé ba su génnee biir commune bi benn poste moo fa nekk c'est un marabout yàlla ko yàlla yërëm muy Serigne Sidi Mokhtar Camara moo ko fa defoon mu ngi nekk Farabougou tey jii poste boobu nekk na ci district bi am na beneen poste bu nga xam ne aussi defaat nañ ko fa waa PDS ñoo ko fa def ak euh, les italiens mais ñun dañu jàpp ne ba léegi des na ñun on a un projet pour deux postes de santé encore daa Guinguinéo ak un équipement bu noppi se battre aussi pour que au niveau de la ministère de la santé am nañ fa ay attaches am nañ fa ay entrées pour que Guinguinéo nekk euh, le poste de santé le centre nekk un hôpital de niveau 3 euh, monsieur Guèye su ma la déggee ngay wax dafa mel ni commune bu Guinguinéo moom dafa tumuraanke maire ah xam naa de eh, am nañ maire de une mairesse soxna Roqee Diouf. député maire. député maire la aussi. Eh, xam naa sax moom mi ngi may dégg man maa nekkoon sama directeur de campagne pour mu nekk tey jii nekk député député maire man ak moom ñoo bokk benn koñ aussi muy sama sœur maa ngi koy nuyu au passage quelqu'un que je respecte parce que c'est une femme qui a beaucoup de valeur kon moom du lay tere dugg si koñ bi ngay def ah, campagne non no non non dafay ànd ak man sa campagne yaakaar naa ne parce que en réalité moom xam na man li may dox lan la xam na aussi sama fulaat sama fayda xam na ne lu ma dugg tamit caaxaanuma ci te ngir ngi ne daf ma ñor te su ma ko accompagner accompagner le PDS pendant vingt ans avec Souleymane Ndéné ba ci Daba Diouf tey jii Euh, te àgguñu fi ñu war a àgg ñun ngi neew gisaguñ ko ci assainissement gisaguñ ko ci euh, résoudre le taux de chômage gisaguñ ci ay infrastructure ci wàllum assainissement euh, foofu noonu ñoom xanaa dañ leen fàtte non fàtte wuñu leen parce que ren même récemment Orange mi ngi commencé bëgg a intervenir. yàgg na de am nga information. depuis kañ. am <laughs> na deux ans ñu ne nañ Orange ñi ngi ñëw temps yi def nañ ay réunion def nañ ko campement def nañ ko céréer ay réunion de mobilisation. est-ce que nekkul ay bluff tout cas man du ma wax la. mais pour le moment daal ñu dara taxaw te nag ñun suñ fekkee ne ñun ñëw nañ ci bopp mairie Guinguinéo bi duñ xaar ONAS duñ xaar keneen danañ ñëw ak sunuy pexe yu nga xam ne nii dañuy daal di ñëw commencé gas parce que xam nañ fi ndox mi war a jaar xam nañ fi mu war a jëm avec un drainage vraiment avec des tuyaux yu nga xam ne nii dañ koy drainer ndox mi. ndoxu taw bi moom mën nañu fex ne dootu fa taxaw. léegi nag le reste mooy peut-être euh, assainissement yi nga xam ne day concerner ne kër yi. yooyu moom peut-être ONAS mooy si mën a mais pour drainer ndoxu taw bi rek ngeen ngi neew loolu moom ñun xam nañ ko te xam nañ ñu koy defee xam ngeen ko mais man tamit j'ai un yenn ci ay jafe-jafe yi nga xam ni mu ngi nekk ci gin ngi new moom xanaa moom doxu si ah dox na ci waaye xam nga nag <laughs> nit ki moom li mu mën fa lay yem dañ naan la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a ah, moom nag xam naa ne nu ma wax ne c'est une belle femme mais c'est une femme qu'on respecte mais elle a des elle a des limites malheureusement bëgg na trop ah elle a beaucoup d'ambition euh, mère la au sens M E accent grave R E. <laughs> yaay la quoi. jaboote na ñëpp bàjjen lañ ko ñenn ñuy wax ñenn ñi naan ko sunu mag ñenn ñi naan ko euh, soxna Daba parce que elle est elle a des vertus mais en réalité amul amul capacité bi te ñi ko jegee aussi wër ko mën nañu wax ne c'est des ankylosés ils ne regardent que au, au, au bout de leur nez foofu la ñuy yem foofu la ñu seen xalaat yem. parce que ñi ngi profité am lu ñu am si moom ak lu ñu dugal seen kër alors que loolu du ab dëkk dëkk li koy defar mooy nga am une équipe dynamique nga am des idées am de partenaires am aussi jëmluwaay am vision bu nga xam ne nii da nga mën a dem taxawal dëkk ba. kon da nga jàpp ni gin gi neew waroon na weesu fi mu nekk nii tey euh, yaa ngi junj itam li nga xam ne moom moo jëm ci taux de bi nga xam ne am na ca dëkk ba. kon donc jéego amul. jéego amul malheureusement nee naa la gin ngi neew dañ ko érigé en 2009 en. Euh, département de Guinguinéo yaa ngi koy dégg en président conseil départemental di Pape Malick Ndour Pape Malick moom it sama sama sama sama jarbaat la sama sama la moom tamit parce que man nekkuma dans la politique d' animosité wala d' adversité man politique may def c'est une politique saine bu nga xam ne li ma yaakaar ne wala fu ma foog ne mën nañ fa doxal Guinguinéo rek kooku dama ko siy jàppal dama siy fas yéene aussi ànd ak moom mais su ma bon mënu ko wax mënu ma ko wax parce que gis naa ay quelques jéego yi muy def c'est pas mal parce que conseil départemental aussi dafa nekk lu bees un bu nga xam ne day soog a juddu en 2009 pratiquement mën nañu wax ne amagul at yu bari donc soo bëggee ñëw presque lépp nekk loo war a defar priorité priorité vraiment yombul mais Pape Malick vraiment mi ngi góorgóorlu quand même mi ngi góorgóorlu Pape Malick laa wax ne waxuma ay Benno Bokk Yaakaar waxuma keneen mais Pape Malick daal président conseil départemental gis naa ne mi ngi def ay jéego et te mun na am euh, ku ko jàppale ba te dina gën a am lu nga xam ne dina ko gën a defaat pour dëkk ba. commune mais nag commune la bu nga xam ne nii. Euh, lu fa manqué dafa bëri. le chômage yaa koy wax léegi des jeunes étudiants. des jeunes éleveurs des jeunes agriculteurs peut-être sax ñooñu am nañ tuuti activité mais des femmes yu nga xam ne ndeysaan ñi ngi bëgg ñu ngi jéem toujours mais vraiment gisuñu ko leen accompagner. Euh, yan jéego lañ war a teg tey naam mairie ba mi ngi fii dina ñi ñëw itam ci li nga xam ni namm nga ko ci dëkk ba kon yan jéego danga jàpp ni ñoom ci seen mission bi nga xam ni euh, ngir ñu euh, jëmale kanam gox ba maanaam gox ba dafa deltu ginnaaw. waaw loolu moom c'est un constat. man dama ko def mais yemuma ci def ko rek le constat gox bi demoon vraiment moom man def naa ko te nag li tax ma ñëwaat takkaat sama ngemb jël sama bannière parti xaaruma ci kenn benn parti xanaa les citoyens les mouvements citoyens peut-être ñoom ñu ànd ak man ci liggéey bi parce que damaa gis ne yuuxu nag dafa dafa jib te su jibee nag dañoo war a taxaw nag ne xool nan la ñuy defaree pour dëkk ba mën a teguwaat ci yoon. la fa jag dëgg la euh, bëri na trop trop trop jagul ba tax na vraiment eh, ñun am nañ ci ay xalaat yu bëree bëree bëree bëri xalaat yi nii nag moom c'est au niveau national parce que qui parle de réhabiliter le chemin de fer loolu ku nekk xam ne ni c'est une politique gouvernementale sumb bu mag la mais ñun am nañ ci ay ay ay ay xalaat yu nga xam ne ni dinañ ko mën a exposer au niveau national suñu faloo maire ba nga xam ne ni président buy ñëw ëllëg dina ko mën a jël les bras euh, les taureaux la tooro par les cornes quand pour que cette euh, ce chemin de fer la mën na ñu mën ko réhabiliter mhm. construire aussi la route Kahone Guinguinéo Mboss Gniby loolu moom vraiment c'est un man ma man dama leen jox ultimatum ni ma ko defee woon ci tronçon Bac Samba Dior Guinguinéo bi en deux mille vingt su fekkee ne euh, tronçon boobu euh, wala route boobu construire nañ ko ak ku mën doon nag comme président parce que xaw ma ndax Macky Sall dina àggale. am déet deux mille vingt quatre am déet. léegi suñ ko construirewul ah. vraiment les populations du département de Guinguinéo dinañ génn organiser une grande marche pour que cette route là soit construite loolu mu mayetuñ ko kenn léegi. 2022 muy dernier ultimatum beneen bi mooy vraiment initier un réseau d'assainissement bu nga xam ne day am solo. su fekkee ONAS ñu ngi koy wax am nañ projet bi ba noppi ñëw di traîner le pas ñoo nga xam ne ñoo ngank commune bi wala ñu leen di jàppale aussi xamuñu fu ñu jëm li leen bàyyi ñuy traîner le pas naan nañuy def ay réunion de mobilisation ala ko ay gas ay bañ ko war a def yàgg na ko war a def yàgg na donc loolu aussi vraiment ñun weesu nañ fu ñuy naxee il est temps que vraiment loolu aussi mu nekk lu nga xam ne dañ koy dañ koy réaliser nu mu gën a gaawee mais aussi euh, mettre en place aussi euh, un programme de construction d'infrastructure un département un département capitale départementale mais mën nañu wax ne l'État n'a encore rien construit là ba à part espace service boobu ñu fa def bërki démb mais du préfecture du police du gen du gendarmerie ñoom ñëpp ci ay locaux anciens locaux lañ nekk te loolu aussi Macky Sall xam na ko hein parce que on, on, il a eu à recevoir des waa Guinguinéo ngi koy wax ne ko on a besoin de d'avoir des constructions des nga xam ne ni se lié au à déjà la municipalité bàyyi nañ fa ay réserves yu nga xam ne pour loolu la mais à ce jour à ce jour vraiment gis guñu lenn lu ñu fa construire lu nga xam ne day accompagner la capitale départementale Guinguinéo pour que mu mën a nekk une ville émergente bëgguma sax tudd euh, terme boobu mais une ville développée bu nga xam ne nii Guinguinéo day siggiwaat ci biir département bi ñu mën a nekk ville bu nga xam ne nii dina am rayonnement. kon su ma la déggee mooy euh, équipe bii fi nekk. Mm-hmm. jàpp nga ni seen app. Mm-hmm. na jeex na dañu war a dem abal ñeneen ñi nga xam ni am nañ envie liggéeyal dëkk bi ñu ñëw euh, mais laata ñuy ñëw ci loolu boo boo bilan bi ci tënk. bilan bi depuis xam nga ñoom cinq ans la ñu waroon def. Mm-hmm. daanaka yóbbu nañ leen ba sept ans. bilan ci sept ans moom loo koy may. Euh, li ma koy may xam naa ne su man je suis un un enseignant gaaw naa may ci deux lool gaaw naa ko may may deux sur vingt. pour suñu paas suñu su ma la déggee. mais mais du ma ko may deux nag naa ko may euh, peut-être euh, sept amul gul moyenne quoi. parce que loolu du man maa ko wax c'est les populations hein parce que une municipalité bu nga xam ne nii léppam ci social la jëm te malheureusement social dans le sens un peu péjoratif mooy day xaar nit dee mu diri saako ceebam ñëw tegal la. mais loolu du yore dëkk. so soppi doxalin yaay la yaay moo koy def ci ay ay doomam. mais maire wala mairesse war nga mën a def lu ëpp loolu foofu bien que nag dinañ si ñëwaat léegi ngir ngi ne amul budget budget mi dafa tuuti trop te loolu ñun on est conscient de cela parce que nekkoon nañu aussi conseil municipal xam nañ bu baax la ñuy wax nii. nekkoon nañ président de commission aussi donc li ñuy wax ni xam nañ ko xam nañ ne du budget kuy xaar budget rek doo fa def ñaari salaamaaleykum xanaa di nga diri saako ceeb di ko yóbbu ci dëj yi yàlla bu mu am nag <laughs> parce que dëj yi moom ñun bëgguñu muy am yi dëj dañu bëgg ngénte di am ay takk di am waaye nag en réalité ñun la waa dëkk ba wax mooy maire daal d'ailleurs moom pare woon na pour ba a bokk ah. mais les lobbying les lobbying ñi nga xam ne seen intérêt ñoo si nekk ñoom ñoo ko wëraat ne ko maire il faut nga ñëwaat nekk candidate man à ma grande surprise au dernier moment la ma wax ne Cheikh je serai encore candidat ma ne ko ah bon alors que man je pensais que yow da nga may def candidat donc comme defoo ma candidat pour ma jiite la liste wàllu Sénégal mais man je vais je m'en vais avec mon parti et être candidat et gagner ces élections là être maire de Guinguinéo. léegi nga am mbëbët bugg ko wutu ci toogu ba. nga ne euh, ay programme yu fasantikoo nga am. ci wàllum jàng. tey yaa ngi wax ni dëkk ba lu bari war nañ ko fa def ci wàllum jàng. kon tey naka nga bëgg a ñëwee relever défi commune bi daal di koy teg ci loxo waa gin ginnaaw ngir ñu ñoom ñu ànd jàppale la ci liggéey boobu. <laughs> merci beaucoup Mbemba xam naa ne tëgg tëb rek nañ jàng xaw ma lan moo tax nag nga. loo am solo la nga bëgg dem rek tëb si nañ jàng mais avant cela dafa am une démarche bu nga xam ne nii soo ko amul loo mën a sumb doo fa àgg doo am résultat. noonu nous avons une démarche. Oui. Cette démarche-là, c'est une démarche participative et inclusive. ah dañuy faral di wax ni su ma moomee su ma su ma gañee. ñëppay ñëw bokk waaye waaye bu ñu gañee rek seen bopp rek. non non ñun avant ñuy gañee sax lañ commencé def cette démarche participative-là parce que tout ce qui est programme wala idée. déjà euh, dañ ko dem taataan ci biir dëkk ba. nga baal ma rek ma fàttali auditeurs yi ñoom itam mën nañ dugg bokk ci waxtaan bi 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 ñu bàyyi la nga wëyal. jërëjëf kon dama nu wax ne la démarche la elle est une démarche elle est une démarche vraiment participative et inclusive. xaaruñu duñ xaar rek ba falu ne dañ koy def ñun avant ñuy falu. lañ commencé mettre de noyaux dans tous les quartiers de Guinguinéo ces noyaux là ñoo doon recueillir les problèmes bi quartier yi am recueillir ñi am ay jafe-jafe recueillir ñi nga xam ne dañoo nekk dans le taux de chômage yooyu yëpp am nañ ces données là donc à partir de ces données là déjà donc nous avons fait de la participation donc suñu faloo tey jii ñoom ñi ngi préparer seen euh, débat d'orientation mais xam naa bu baax ñuy doon defee débat d'orientation ñoom euh, ñaar nit la ñuy invité invité fii benn kii benn kii daal di ñëw toog na yooyu donc amul du du répondant ñun ay conseil de quartier la ñuy samp suñu demee ba gagné conseil de quartier boobu day am ay délégué de quartier dana am ay conseil municipaux dana am ay président ASC dina am président des jeunes président GP même président daayira yi ba ci notable yi ñoom ñooy forme dans chaque quartier un conseil de quartier. ñu boole leen ci biir. conseil de quartier avant ñuy bokk ci biir. Hmm. ñoom ñooy xool lan lay jafe-jafe sa gox ba si koñ ba. su ko defee jafe-jafe yooyu ñoom dañ koy remonter à travers leur président de de de de conseil ak leur euh, conseil municipaux yi fa nekk parce que man quartier bu nekk incha allah am na fay conseil yi nga xam ne nii dugal naa ne sama liste dinañ falu incha allah donc ñoom suñu indee loolu en en équipe restreinte déjà ñun dañuy étudier loolu parce que dinaa ci ñëw léegi am na nu ñu bëgg a doxalee lu nga xam ne nii on les appelle le groupe des étoiles groupe des étoiles yi tout ce travail de de, de production et travail bu nga xam ne day jëm ci wàllu taataan ay xalaat ñoom ñoo koy def donc production et conception mooy le groupe des étoiles boobu ñoom la ñuy def ñooñu suñu leen joxee yooyu si ñoom ñoo koy tënk ba nga xam ne dinañ mën a xam exactement fi ñuy teg suñu tànk donc c'est ça la participation la participation en réalité maintenant inclusive mooy duñ bàyyi kenn duñ beddi kenn duñ beddi sàmm bi duñ beddi euh, parce que des fois malheureusement euh, la la la la politique sénégalaise dañoo dem ba yaakaar ne léegi ki jàng école rek mooy politique. ñun suñu parti dañu jàppoon ne sax waruñoo sax utiliser français ci ci ci politique lii gi ak ak waxi olof baati olof moo gën a mën a atteindre le les cibles kon ñun dañuy dem jëli sax nga xam ni nekkul ku jàng école. waxtaan ak moom dugal ko si sunu comité yooyu nga xam ne dañ koy créé dugal ko sunu groupe yooyu nga xam ne koy créé su ko defee ces gens là dinañ indi seen idée indi seen i proposition yooyu yëpp na la boole nag tënk ko dëxañ ko ba nga xam ni première année déjà dañuy def résultat yi mu mën a feeñ maintenant pour revenir à. ci ponk yi aspect yi. aspect yi peut-être des na tuuti sax parce que. Euh, dafa am loo xam ne euh, euh, dafa am solo te dañ ko gëm. mooy parce que à l'image de Mbagnick Diop Souche donc ki ki nga xam ne dama koy remercier waat di ko féliciter waat passage. quelqu'un qui est très entreprenant ñun suñu démarche c'est axé la charpente de notre gestion plus tard ça sera l'entrepreneuriat entrepreneuriat bi mooy nekk charpente bi lépp lu nga xam ne nii ci côté bi si wàllu euh, yaxantu la rek dañ koy intégrer. am na ku daal di fëgg. ñu daal di koy jël. Euh, salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa lay fay ñu ngi lay ziar tur bi ak foo nuy woowe maa ngi tudd Pape Babou Diop maa ngi woote Guinguinéo. ah am na solo Pape Baba tey lan nga ñu mën a wax tey ci euh, Cheikh Gueye bi nga xam ni mi ngi toog yéen a ngi koy déglu ca diwaan ba lan nga ñu ci mën a wax ci ay ponk. dégg la donc di di rafetlu déjà émission bi Nemba donc di féliciter euh, Cheikh Gueye donc di ko wax ne c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a euh, accueilli. sa candidature di wax ne monsieur Guèye dafa dafa xam mooy c'est-à-dire mooy M A U X yu gën ngi new très sincèrement muy ci wàllu infrastructure wax na ko ci wàllu santé ci wàllu assainissement ci wàllu chômage donc de manière très ramassée wax na wax na li waa gën ngi new soxla yëpp te gëm naa ne ak expérience bi mu am ci wàllu politique hmm. ak volonté bi envie bi donc lépp a ngi fi tey jii pour tey jii bu jëlee commune bu Guinguinéo ñun les jeunes ñu mën cee gis suñu bopp. jàpp ngeen ne mën na ko doxal. dina ko doxal très sincèrement parce que en réalité du ma du tax lu ñuy bëgg di wax mais Guinguinéo fu ñu toll nii amul dara ñun jeunes gisuñ ci suñu bopp donc on est obligé parfois dañuy dem ay Dakar soo demee période bi Guinguinéo tu trouves personne là-bas parce que. ñu jeunes yi ñu mën a gis suñu bopp foofu donc on est obligé d'aller dans d'autres villes pour mën a gis suñu bopp am nañu yoon mën cee dimbali suñu bopp suñu njaboot et gëm naa ne monsieur Guèye peut ak programme yi mu yi mu nar a teg donc toute la population de ngi Guinguinéo dinañ ci gis seen bopp donc ñoom ñëpp donc ñu ngi rafetluwaat encore une fois euh, waxtaan bi bu baax a baax donc dina encourager monsieur Guèye parce que très sincèrement pour wax la dëgg euh, on a on a on a beaucoup d'espoir on a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup d'espoir sur votre personne on connaît vos capacités donc on connaît votre volonté à à à mener vers le cette commune. merci on espère qu'au soir du 23 euh, 23 janvier inchallah dinañ ko dina dina ko di te dina commune bu baax a baax a am na solo yow itam di la gërëm di la sant ci sa dugg moom itam monsieur Guèye dinañ ko jox opportunité laata ñuy jeexal mu gërëm waa euh, gin ginnaaw euh, yëpp di la sant di la gërëm bu baax a baax ñu bàyyi la nga wëyal ci ponk yi nga xam ni yaa ngi ca woon. Euh, jërëjëf ko dugg foog naa ne mooy Pape Baba Diop dama koy gërëm bu baax c'est un jeune mais des jeunes yu xam liñ bëgg ñun suñu liste mën nañu wax ne à 60 pour cent des jeunes mais des jeunes. yu nga xam ne lépp a ngi si ah ay étudiants master 2 ay médecins ay ingénieurs am na euh, ñu ay baykat am na sàmmkat. Mhm. am na ñu nga xam ne aussi defuñu dara. dañoo toog rek ne saan di di di di yaxantu quoi. am nay électricien am na lépp. mais 60 pour cent yi mën nañu wax ne c' est des jeunes. c' est 70 pour cent très important. am liy defar yëpp dëkk. Mm, ndaw ci la bokk vraiment ndaw ci la bokk. am na solo garab googu nag soo ko bëggee suuxat da nga sonn sa ndox jeex mais doo am xob. Mm. nañu suuxat garab yi nga xam ne ñoo desee xob am ami reen. Mm. su ko defee ñu dundal leen ñu mën a jëm ci kanam. ah donc euh, dama doon ñëw ne suñu charpente bi nga xam ne moo war a tënk moo war a lié sunu programme ak sunu démarche. mooy l' entrepreneuriat doon si félicité léegi Mbagnick Diop Souche di wax ne entrepreneuriat dafa nekk lu nga xam ne lu am solo dinaa la wax benn anecdote Mbemba euh, dafa am benn benn jeune da doon wuti liggéey bi mu demee ndeysaan dañu woo ko ci benn entreprise mu war a nekk gardien xeebutoon dara ah, mu war a nekk gardien. am na solo bi mu ñëwee malheureusement ndeysaan ci euh, directeur bi mu ne ko woy sa dossier baax na war nañ ne war a jël gardien bi mu demee war a signé ñu est-ce que am nga email mu ne ko déedéet ñu ko kon yow vraiment c'est malheureux parce que yow tu n'es pas moderne jël parce que entreprise bu toll nii soo amul di doxantu nga xam ne fa la entreprise nekk mu xool pour ba nu bëggoon a jënd cigarette gisul benn yoon cigarette ndeysaan mu daal di euh, nekkoon man xaaral ma dem jënd ñetti paquetu cigarette fee si li ma am ko néew ci li ma waroon passé ñu commencé installé fii entre entreprise de bon peut-être boutique mbagg cigarette boutique mbagg mbam cigarette boobu moo ko dem indi ko ba mu nekk un grand entrepreneur am une entreprise bu mag. ci wàllu nga xam ne mooy wàllu. ci wàllu wàllu cigarette. Euh, bi nga xamee dem na ba jamono aussi àgg fu nga xam ne kawe na lool benn waaye daal di ñëw ndeysaan ne ko dañu bëggoon nga jox ñu sa numéro email comme ça ñu mën la ñu mën la def yow ay relation mu ne leen aw ma email de ñu ne ko am ah, entreprise bu toll na yow amoo email mu mu ne leen waaw su ma amoon email kon tey jii gardien lay doon. léegi nga fa mu jógee. email moo ko xañoon gardien mais tey su fekkoon amoon email kon du si nekk entrepreneur. gardien lay day resté gardien. mu ñu gon ñu mën a jàngat lan ñu mën a jàngat ne à partir de ces petites choses là mondaines de la de la vie moderne on di ay réseaux sociaux ay email ay boîte nangam nangam yooyu du yëf yi yëf yi mooy lan lañ xam ak lañ mën nu mu tuuti tuuti à travers nos petits doigts là nañ dem jéem ko réaliser nañ dem jéem ko organiser que ça soit au niveau des jeunes que ça soit au niveau des femmes organisé leen préparer leen digal leen ci ay mbir yu nga xam ne ni ëllëg dañuy mën a yaxantu ci lu ma doon muy wàllu mbay di wàllu sàmm di wàllu napp di wàllu artisanat di lépp ci wàll yu nga xam ni nekk na ko mun nañ leen see organiser préparer leen ci ba nga xam ne nañ mën a àgg ci ay résultat yu probants donc loolu mooy développement l'entrepreneuriat donc mooy nekk la charpente le socle même de notre programme da loolu dañoo euh, gis ne dañuy créer donc benn consortium d' entreprise peut-être mën nañu wax ne maire en tant que conseil municipal nangam nangam doo am mandat pour créer loolu mais euh, dañuy am suñuy nit ñu nga xam ne nii ñoom si loolu la ñuy yëngatu ñoom ñooy créer ce consortium d' entreprise là dina am trois groupes clés maanaam euh, ñi nga xam ne dañ leen identifier par les gilets verts ñenn ñi dañ leen identifier par les gilets jaunes ñenn ñi dañ leen identifier par les gilets rouges ñetti groupe yooyu dana am na groupe bu nga xam ne ni mooy nekk ci kaw mooy les étoiles ba mu laa doon junj léegi étoiles yooyu nag mooy ñi nga xam ne ni ñoom ñooy def la conception et la production tépp luy xam-xam lépp luy pexe maanaam ci wàllu finance ci wàllu euh, projet loolu yëpp ñoom ñoo koy def parce que en réalité dañoo bëgg a mettre en place ce qu'on appelle un un un un comment dirais un budget un fonds municipal euh, de d'entrepreneuriat bu nga xam ne nii dañ koy loger foofu ci dëkk ba. ñoo fay dox créer aussi un beneen fonds bu nga xam ne c'est un fonds social un bureau euh, social bu nga xam ne nii ñun ñi nga xam ne ñu amee jafe-jafe aussi foofu la ñuy dugg. donc en de de manière très schématique loolu mooy la charpente même de notre de notre de notre de notre politique et de notre. de notre kii maintenant ci wàllu éducation yaa ngi koy wax léegi. xam nga ñaare ñaare secteurs yi. Euh, ñu bëri dañuy wax ne éducation yaakaar ne c'est l'enseignement élémentaire wala ñun dañoo gis éducation ci de manière générique ci générique boobu dañ see gis lu englobant maanaam ñun suñu xalaat dañuy commencer ci petite petite enfance ba ci université. ci kaw dëgg la dañ naan domaine de compétence yi du la mairie du loolu du lii du la mais ñun ni nga xam ni moom lañ bëgg a tëgg petite enfance dañuy commencer. ba ci ñi nga xam ne ñooy université. yéeg ca kaw waaw petite enfance déjà gis nañ ne war nañ créer ay structures d'accueil de la petite enfance man bi ma nekkee foofu directeur d'école euh, j'avais théorisé ce qu'on appelle les classes préparatoires ba yàlla dogal école bi nekkoon demoon nañ ci ba créer euh, classe préparatoire nga xam ne xale yi tout le temps yi mënut a àgg biir ville pour dafa jànge ji. nañ doon ñëw foofu ñu leen initier. donc on va mettre ces centres d'accueil là au dans trois quartiers. mënu naa tudd quartier mais dama ko bëgg tudd léegi parce que ak mu ci biir mhm. c'est structure d'accueil là dañu na dalal ay xale tout tànk de trois ans à cinq ans six ans su ko defee ñoom ñu initier leen à l'école mais pas à l'école seulement française mais aussi à l'école coranique parce que dañuy nar a defar aussi ay centre euh, d'enseignement coranique yu nga xam ne nii au moins dans daara moderne peut-être mënuma bëgguma tudd sax daara moderne parce que daara moderne bi ñu koy wax ak lañ fi mu nekk nii bokkut ak ñun lañ gëm ci da ngeen ko bëggee ñun ay centre d'enseignement lañ koy tuddee ñu nga xam ne nii dañ fay jàngal xale yi nu ñuy ñu initier leen d' abord à la lecture au Coran mais aussi ñu mën leen a jàngal alxuraan ak ñu mën a am tuuti xam-xam ba nga xam ne suñ fa paree dinañ mën a dem atteindre la l' école l' élémentaire. Euh, au niveau de l' élémentaire aussi euh, xam naa ñu xaw a révolutionnaire lay doon mais on va mettre en place des cantines dans toutes les écoles élémentaires de Guinguinéo des cantines. quand na soo waxee ñaar da nga naan oui ça demande des moyens foo koy jëlee mais c'est les c'est le travail des gilets jaunes li ma doon wax léegi gilets jaunes yooyu ñoom ñooy liggéey loolu seen xam-xam nañ leen ci tàggat ba nga xam ne ñoom ñoom ñooy gérer tout ce qui est te du nekk lu nga xam ne ni xale yi dinañ ci sonn mais parents yi avec la participation bi ñu doon wax ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy doxal ba nga xam ne mairie sax mën na see bañ a dugal dugal loxoom donc on va mettre en place des cantines scolaires on va mettre aussi en place des les écoles ba infirmerie bu nga xam ne day laaj. Euh, ni paracétamol rek wala def. Euh, dinañ fa am les premiers soins ba nga xam ne xale bi su feebaree duñ ko renvoyer muy dem ñibbi école avec toutes les difficultés. premiers soins yi mu jël ko foofu premiers soins yi dina a jël sur place. au niveau maintenant moyen secondaire aussi la même chose dañ ko fay répété mais dinañ créer lu nga xam ne aussi mooy les bourses d'excellence à tous les niveaux. ñun duñ yem rek ci ne way euh, élèves bi am entrance yéen nekk paie dañ koy defal ñëpp lañuy defal ay bourses d'excellence de aux universitaires képp nga xam ni da nga exceller ci sa euh, ci sa classe dañ la prévoir ay li nga xam ne mooy ay bourses d'excellence mais duñ fa yem aussi dana am ay bourses d'études bourses d'études yu nga xam ne nii c'est lié à la formation professionnelle ñi nga xam ne ni am nañ brevet ñu xam ne suñu leen bàyyee ñuy dem di defi lycée dañuy tardé dañ leen fexe introduire dans des centres de formation professionnelle ñooñu aussi dañ leen teel identifier c'est le groupe des étoiles ñoom ñoo leen identifier su ko defee ñu mën leen teel a orienter dans ces de formation professionnelle lu ci nekk rek ci sa programme am na fànn bi nga xam ne rëdd nga ko mu war ko accompagner moo xam ci wàllum éducation moo xam ci wàllum santé mais ndaxam Cheikh hmm. Gueye hmm. loolu dana yombam euh, xam nga yomb moom mbirum yàlla la jafe aussi mbirum yàlla la mais ñun dañu am. Euh, parce que maa ngi la dégg ngeen ne seen budget. commune dafa faible. naka ngeen ko tey nar a suqali ko ba lii nga nga sumb. Mm-hmm. Euh, nga dar ko naal nga daal di koy naal foofu. waaw xam nga li ma sumb lépp sa waxuma waxu waxaguma sax. genn wàll mm-hmm. xaaj bi sa waxaguma ko kaar bi. Mm-hmm. Euh, parce que li ñu sumb ci programme vraiment dafa bëri waaye nag sama gars yaa ngi déglu xam naa ne ñu ngi commencé bëgg a def copie coller waaye ça ne passera pas parce que idée yi ak xalaat bi benn la fii te ñoo ko yor. parce que nag dañoo jaar fenn fu nga xam fu yaatu la. yaa jaar yàgg sonn yàgg yàgg mbëkkante yàgg dox. dugg nga ci commune néew dugg naa fa dem na faa xam ngeen ngi néew. <laughs> ñëwaguma sax si cadre de vie mais su ma si nga xam ne man xamaa xam ngeen ngi néew. xam naa bu baax ma waa def ay tali xam naa bu baax ma war def éclairage public xam naa bu baax ma war def ay espace vert espace de jeu pour les enfants lu fa tumuranke tey jii xale boo si indi woon Magic Land fii Dakar day jaxle alors que pourquoi pas. am nga projet yi yu mel noonu. bien sûr bien sûr que am na am na projet yu mel na yu nga xam ne yooyu yëpp incha allah suñu demee ba jot si bopp réew mi boppu dëkk ba dinañ ko mën a. xam naa ngay donc damay ñëwaat damay ñëwaat léegi ci li nga doon wax mooy euh, affaire peut-être euh, fan la ñuy jëlee moyens yi. moyens ngi neew dafa nekk commune bu nga xam ne nii il a un budget de deux cent quarante six quelque chose comme moins de trois cent millions. avec le les fonds de dotation qui tournent aux environs de 16 millions fonds de concours 6 millions 7 millions ñoom ñi fa nekk nii si budget bi ñu commencé defal nii nga xam ne am naa ci écho mënuguñoo àgg sax si 400 millions ñun suñu xalaat dinañ yóbbu budget bi dans un premier temps à plus d'un mille d'un demi milliard maanaam pour être réaliste parce que am na des niches de recettes yu fa nekk yi nga xam ne ne exploité ñu ko parce que ñoom dañ koo def de la du clientélisme politique fi nga xam ne fa lañ war a jëlee ay ressources dañ ko def du clientélisme politique ñun suñu ñëwee loolu lépp dañ ci exploité waxtaan si ñoom ba nga xam ne ñi nga xam ne dañoo nekk si yooyu niche yooyu suñuy participer day nekk pour njariñu askan wi dañ siy gis seen bopp mais duñ participer pour ñu dugg si euh, loxol maire wala doxal euh, adjoint maire wala loxol kii pour te dire encore une la maire est très seule ah ouais pour si pour nga dire que gestion bi vraiment c'est décrié adjoint maire am dem na premier adjoint maire dem na deuxième adjoint maire dem na au moins cinq présidents de commission bokkuñu ci ay listam donc pour te dire que encore une fois vraiment am na lu nga xam ne daal sooxe na fa manqué na fa le budget c'est aux environs de trois cent millions mais ñun avec le partenariat. am nga mbébét bi yóbbu ko ca. ba téeméeri million ba téeméeri million maanaam demi milliard. déjà la première la deuxième année trois ans yi njëkk yi incha allah dinañ fexe àggale budget bi foofu. te loolu sur fonds propres lay doon nekkul lu nga xam ni c'est les yi nga xam ne dañ koy war a jële ji ci ay partenaires déjà déjà y a xam ne li ma doon wax nii ci wàllu bi xam ne mooy wàllu gilets jaunes yi ñoom déjà ils sont prêts te def nañ ko nag dañoo ñëw def ko à l'œuvre fii dans dans le département de Guinguinéo mën naa tudd euh, dëkk ba sax bi nga xam ne def nañ ko fa sa c'est des yu nga xam ne ñoom par nañ pour liggéey ak ñun on a des partenaires turcs yu nga xam ne aussi par nañ pour accompagner dans le cadre de vie tout ce qui est espace vert tout ce qui est vraiment salle de jeu tout ce qui est euh, espace de jeu pour enfants yooyu yëpp ñoom par nañ aussi pour jàppale ñu. pare nga pour euh, dekkalaat espoir wala dekkalaat dundalaat yaakaar ci commune boobu kon suñ la déggee ngay wax kon euh, Guinguinéo euh, sooxe na lu bari sooxe na fa. du ma wax yaakaar parce que yaakaar moom dafa am ñu ñu tas seen yaakaar ba noppi. parce que am na ñu fi waxoon yaakaar ah dundalaat yaakaar waxoon nañ ko fi dañ koo yàq ci ay pax pax yooyu nag fan la nekk mooy si famille Sall famille Fayane yi famille Gassama yi foofu lañ jël yaakaaru Sénégal gi yëpp yàqal leen ko tënk leen ko fa dugal leen ko foofu ñoom ñu koy gundaandaat sénégalais yi nekk di souffrir ba nëga ni ñun dañ ne pas de messianisme gëmuñu ay dañuy jëli fële ay nit ñu ñëw de manière non non liñ gëm mooy euh, ensemble nous pouvons développer la ville ensemble nag mooy ku nekk da nga ciy dugal sa loxo déjà ñun tracé nañ voie yi on a euh, la charpente qui est l'entrepreneuriat donc à travers ça et suñu partenaires yi ñu nar a accompagner vraiment on va développer ngeen ngi neew te du nekk du messianisme du nekk du du du du xam nga ni ñu koy tuddee du surnaturalisme mais day nekk de la chose vraiment concrète dans une situation concrète bu nga xam ne dañuy arriver à développer ngi néew et am na solo une heure de temps mënut contenir lépp xëy na mbébét gi moo doon ñu euh, waxtaanee ci lépp waaye comme ci élection lañ jëm ñaan nañ itam bu ngeen fa paree ak lu ci mënti am ñu ñëwaat toogaat fii daal di koy waxtaanee itam di la ko ñaanal bu baax a mm. baax waaye euh, laata ñoo dem rek euh, daanaka presque juróomi minute moo ñu dese mm. ñu bàyyi la rek ci kàddu gu mujj gi ñu bàyyi la nga gërëm doon teewlu tey euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Kaolack yëpp rawatina waa gin gineew ñu bàyyi la moo dernier moo bi nga daal di tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokki auditeurs yi nga xam ni saa si tembe ñu ñuy déglu ak sunu portail www.rewmi.com jërëjëf euh, encore une fois Mbemba euh, damay gërëm nag d' abord dañ naan sooy commencé da ngay commencé li la gën a jege. am na solo li ma wax fii lépp c' est une cellule de communication bu nga xam ni plus de deux mois ngi ñoom ñi ngi liggéey ci dans dans affaire là. cellule boobu nag vraiment ñi ko ñi fa nekk am na sax ñu nga xam ni si kër gi lañ bokk ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp nag bàyyiwuñ si kenn am nay góor am nay jigéen am nay xale am nay ndaw am nay étudiant am na ñu nga xam ne sax liggéeyuñu dara parce que man dama ne sama philosophie mooy tout le monde on peut faire quelque chose donc cellule boobu laay njëkk a gërëm gannaaw bi nga xamee ne gërëm naa leen ñooñu aussi damay gërëmay waa gërëm waa ngee ngi new yëpp gërëm ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ñu am si yaakaar am si ñun cofeel ba nga xam ne ni en une semaine en un temps record laa la wax ni Mbemba man si laa dem descendre ngeen ne defar samay liste déposé zéro faute man maa nekk deuxième liste bi déposé te duma coalition duma dara parti politique laa man maa nekk deuxième bi déposé te loolu su ma ko mënee am c'est parce que waa ngir ngi new dañu ma defal confiance parce que quatre ans yëpp dama nekkoon en hibernation politique am na ñu nga xam ne ñu nga fa woon ci terrain bi ña ngay joxe lii ña ngay joxe laa ña ay parrainage ña ngay def ne mais en réalité nit ñi soxlaatuñ ku leen ñëw leen jox ay xaalis soxlaatuñ loolu li leen soxla mooy ku leen jàppale ñu dem ci kanam parce que yow fa nga dem ba àgg fa ci kanam ba mën a jël ay xaalis leen jox dañ laa jàppale donc nit ñi loolu lañ soxla ñun suñu bàq dañ ne ku mën a ñëw na ngay indi sa programme waaye xaalis ak dërëm ku koy yor bëgg dama jaay sama dëkk da nga da ngay nax sa bopp dama la jaay sama dëkk kon maa ngi gërëm waa gin ginneew yëpp di ko commencé si ñi nga xam ne mooy kilifa diine ya fa nekk nga xam ne ñoom ñëpp samay xarit lañ ngeen ngi neew man awma frontière du këru tijaan yi du këru murid yi du këru xaadir yi du kër genn kër gu nga xam ne am naa frontière ba ci église bi fu ma neex mën naa faa dugg te suma demee dañ may recevoir dañuy wax ak man parce que quelque part lu yàgg la te lu yàgg dëgg la di gërëm ñi nga xam ne aussi ñooy sama sama famille toute la famille duran toute la famille bi ma bëggal a bëgg a wax ñoom ñëpp dañu si jàpp Euh, vraiment amatuñ sax pour temps pour napp. Mballo Dia Thiam secrétaire général SUTSAS mu ngi wax ni am na yéen intervenir xam naa ni lu mu xat la moo tax en tout cas ñun itam am nañ mbégte loolu itam dalal la fii tey. jërëjëf jërëjëf xam naa Mballo moom vraiment <laughs> moom c'est un ami euh, dafa nekk ku nga xam ne aussi dafa cher si ñun. parce que j'ai quand même euh, une bonne partie de famille bu nekk ci wàllu santé bi mu nekk quelqu'un bu leen di accompagner bu baax a baax. man nag ma xamante woon moom du waxoon doon liggéey moom ci UNSAS et vraiment depuis très longtemps mhm. donc euh, mbaalu ak ñenn ñi bëgg dugg y a des amis yoo xam ñi aux États-Unis aujourd'hui dañu bëggoon dugg ci émission bi am ne pare woon nañ pour dugg ci am na solo euh, donc am na si lu nga xam ne daal mhm. mun nañu wax ne li dóof si euh, nag bi yëpp xajul si cin bi am na solo mais li am solo mooy ah. on vous donne rendez-vous prochainement parce que on sera maire incha allah au soir janvier su ko yàlla tuddee te yàlla gëm naa dina ko tudd parce nag nous sommes te gëm nañ li ñuy def te li ñu tax a jóg rek mooy njariñu askan bi. Ah. donc longtemps encore une fois la mais au Guinguinéois mu nekk sa biir ak ñu nekk ci biti ñëpp nañ ñëw jàppale ñu gëm seen bopp nag parce que yëf yi nekkatul ay wéy kii lii kii laa non non jëf yi fi nekk mooy ñu gëm suñu bopp. ensemble nous allons réussir yes we can merci am na solo di koy sant di ko gërëm bu baax moom Cheikh Gueye jóge ba ca gin ginnaaw ñëw tey mu nekkoon suñu gan ci émission gox bi di gërëm Bachir mi nga xam ni moom moo nekk ci xarale gi di gërëm faatu Baba faal ci coordination émission bi kon mbokk yi jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo Rewmi FM.